nga lay ziar mën nga présenté wu. Modou Mamoun Gadiaga commission logistique Touba ca kanam. sëñ Modou Mamoun tey jii bis bu am solo di leen waajal liggéey bu am solo muy assainir Touba ngeen yore lépp lu jëm ci wàllu logistique liggéey bu am solo boobu naka ngeen ko doon saytoo ba tey jii ngeen am ci résultat bi. waaw euh, ñoo ngi lay nuyu monsieur Faye di la ziar di nuyu seen organe di leen sant ci ceewaay bi ngeen xam nga teew ngeen ko fii tey ci liggéey bi ñuy liggéeyal sëñ Bamba xam nga bu buñ ko waxee mooy lépp loo xam ne dafa jëm ci matériel wu Touba ca kanam matériel boobu nag mooy def liggéey bi alors pour ñu acquérir loolu li ñu njëkk a def mooy euh, dañu xool li nga xam ne mooy besoin yi ñu def expression en besoin bi ñu defee expression en besoin bi ñu listé ko li ñu mën a acquérir ñu acquérir ko li ñu mënta acquérir mooy li ñu def nii tàllal suñuy loxo mbokku taalibe yi macha allah dimbale nañ ñu nag jàppale nañ ñu ci matériel roulant. et ce matériel roulant bi ñu jàppale jàppale nañ ñu ci li ñuy wax euh, machine chargeuse niveleuse tractopelle jàppale nañ ñu aussi ci ay euh, compacteur alors fekk na nag Touba ci kanam am aussi ces chargeuses ndax am nañ ñaar. benn bi ñoo ko jënd bu bees tàq mais benn bi aussi CCBM moo ñu ko jox addiya bu bees tàq am nañ hydrocureur boo xam ne dafay curer ay kano mais aussi dafay def vidange de fosse yooyu yëpp bi ñu ko jëlee nag ñu boole ko ñu fas yéene ànd ci liggéey bi ngir mën a liggéey liggéey bi. bu mel ni kon tubaa ca kanam euh, liñ doon sëntu ci liggéey bi am na lu ko kawee seen njort. waaw xam nga Serigne tubaa moom boo ko dee liggéeyal te dëggu moom ci boppam moo lay gàttandul boppam ànd ak yow. loolu la ñu sëriñ bi def daf ñoo gàttandu ànd ak ñun gëm nañ ne liggéey bi sëñ Bamba nangu na ko loolu moo tax li biñ ko wootee gëm nañ ne taalibe yi sëñ Bamba yi dinañ ñu fekk si moo tax sunu njort dañuy yaakaar ne sax du amagu état atteindre guñu fañ fañ fañ fañ war a egg waaye nag ñoo ngi ciy gën a rafet njort incha allah en tant que ay taalibe sëñ Bamba. boo doon sant wala ngay lancer message wala soññe euh, ci ñi nga xam ne ni ñooy euh, mbokki taalibe yi contribuer ak ñi bëgg a lan nga leen di wax. Touba ca kanam ca kanam. te ngir mu dem ci kanam ndun mbokk taalibe ñooy àndandoo yóbbu ko ca kanam nañ maase àndandoo jàpp ci liggéey bi te xam ne dañuy liggéey pour le développement social et économique de la ville de Touba te loolu dafay jëm ci biir Touba jëm ci niti Touba kon ñoo ngi leen di tàllal suñu seeni loxo di leen sant di leen gërëm di leen wax ne liggéey bi mu ngi nii yéen rek ko moom seeni i ñaar téeméer moom ci wàllu boppam moo def luñ fi mën a def ñaar téeméer yooyu ñoo def poste de santé yi ñoo def daara yi ñoo def euh, adduction d'eau bi ñoo def lépp loo xam ne ñu ngi koy def ba ci assainissement bi lépp luñ fi daj rek yéen la ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm. question bi ñuy mujjee mooy ci wàllum matériel logistique bi ni nga ko waxee gis nañ ci seen affiche yi am na ci ñoo xam ne ni sax mën nañ ne bon bokkuñu ci yoon wi gis nañ ñu seen contribution loolu itam lan nga leen di wax ci côté boobu loo ciy leerale. man nga répété waat question bi ndax. dëgg ci wàllum collecte logistique yi ak fonds yeeg yooyu gis nañu ñoo xam ne ni euh, xëy na weneen yoon lañ bokk waaye gis nañ seen apport ci Touba ci kanam moo xam dañoo able wala dañoo maye wala ñu def leen loolu itam loolu ciy leeral ñi nga xam ne contribué nañ alors que sax bokkuñu ci yoon bi. man damaa jàpp ne ci yoon wi lañ bokk. pourquoi parce mouridisme n'est rien d'autre que l'islam Serigne Touba dafa doon jullit ba pare tegu ci yoonu njullit gi te ci li nga xam ne moom la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngale ñun ñëpp benn lañ murit bi tiijaan bi xaadir bi ñun ñëpp benn lañ ñoo bokk di liggéey ci liggéey bi tey bu subaa su fekkoon ne ñoo ñu bokkuñ ci yoon wi dañoo def nangam ca kanam di liggéey tey woote nun waa Touba ca kanam danañ dem fekk si kon liggéey bi benn la nous sommes un indivisible ndax ñoo bokk jóg l'islam bi